waxuma la new newuñu si ah, ah, entretien d'embauche li ngay def nii expérience rek kan mooy sa leader jamono yi actuellement laa la waxuma la démb waxuma la barki démb waxuma la suba tey actuellement aujourd'hui ngañ kan lay soutenir ci politique ngañ mi ngi nekk Benno Bokk Yaakaar nekk APR Médina ba tey <laughs> mais mais en si bi li nga bëgg du ko wax quoi parce que da nga bëgg wax la tur ay non du ma dugg si. ay kon ñëw nii yooyu. yow politiquement maa ngi si coalition benn bokk yaakaar maa ngi APR. man laaj ma loolu dama ne ngañ kan mooy sa leader politique jamono yi. mais benn yow ngañ yow xam nga si kuñ la njëkk a xamee non attends dafa am si kuñ la njëkk a xamee yaakaar naa man si moom laa la xamee ñëpp moom la ñu xamee da nga doon ànd ak Seydou Gueye Seydou fu mu dem nga dugg fa comme ni ma ko waxee Ousmane Kandé Seydou bu duggee ci fosse septique nga dugg Seydou bu duggee ci géej nga dugg fu Seydou ne gauche nga ne droite mais aujourd'hui on te voit plus avec Seydou qu'est-ce qu'il a c'est c'est un divorce non non il y a pas de divorce il pas de problème il rien amul dara au fait euh, xam nga politique tamit. Seydou kañ ko gëj a dégg. Euh, bon yàgg na yàgg na quand même. Ah. yàgg na yàgg na xam nga échéance yi da ngay jóge si échéance bi après dal ci bële. bon bi ñu paree nag élection les présidentielles ba léegi amuñu occasion def réunion xam nga affaire yëpp évaluation yooyu amagul. Seydou je pense que ce qui ce qui vous lie c'est plus la politique. non non Seydou Seydou Seydou il est mon grand frère Seydou c'est mon grand frère c'est mon grand frère ak ah, lu mënti xew politiquement il demeure mon grand frère il demeure demeure responsable bi nga xamante ne moo moo may gu à la politique moo ma jàngal moom moo ma xamal lu bari ci politique kooku dama koy gërëm dama koy sant fépp ah. mais kan en fait nit dafa am fooy toll ci politique dootul ay affaire de leader politique wala affaire yooyu quoi man man man je sais que j'appartiens à la coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. balaa mooy defati dara damay xaar ñu leeral diggante président Macky Sall Amadou Ba loolu lay xaar ñu leeral ko. puisque am naa ci suma point de vue am naa ci suma kii mais bon loolu lay xam ñu leeral rek. d' accord léegi yow fii ci Médina ci Médina fii gis nañu aussi nga déjà le maire t'a euh, mis dans son cabinet. oui n' est donc euh, apparemment euh, yaa ngi commencé tàmbali liggéey foofu. voilà le maire le euh, maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Euh. Euh, nekk suma aussi suma grand frère suma xarit. Mm-hmm. à travers ce plateau ma koy remercier puisque li ma defal c'est pas facile parce que nga gis nit koo xamante ne donte ay xarit ngeen mais boo ko leen parti politique donte yéen a bokk benn coalition. mu liggéey si bërëb ba jógee fa. nga toog waxtaan ak moom moom proposition boobu ouverture d'esprit boobu ne la jël la nga liggéeyal ma suma cabinet man tam mu nekk loo xamante ne vraiment lu ma jëlee kaw la wala dama koy gërëm di ko sant euh, instant bii moo tax. yow yaa ko démarché wala moom moo démarché. non man maa ko démarché man maa ko démarché man moom waxtaan ak moom parce que j'avais besoin de ça au fait parce que mooy li ma la wax sànq rek ma ne la man dama am expérience centrale am dama am expérience état central mais j'avais de ça. expérience service sa commune quoi. waaw service sama commune expérience locale bi. li ma jàng fële ma ñëw peut-être indi ko fii dina ëpp utilité quoi et vraiment ci me sens bi aussi poste bi aussi dina am lu ci dugg aussi waaw ah, mais bon yooyu yëpp si la bokk parce que nit ki tamit kenn du def dara si si si kii sooy liggéey xëy da ngay xam ñu fay la lan lan nga jàppee ni mooy mooy euh, bilan wu le maire Bamba Fall non avant ça avant est-ce que euh, bi ngay bi nga demee ci maire ba maire accepté dugal la ci cabinet am ça il faut le dire hein tu déjà est-ce que jotoon nga woo euh, sa sa grand frère monsieur Seydou Guèye. oui oh, si xoolaa euh, c'est vrai bon. mais bon yooyu pour man c'est un peu ah, privé non pour man c'est un peu privé yooyu peut-être dinañ am occasion waxaat waxaat waxaat waxaat lan moo ci privé ne ma woowu ma ko non non non du yooyu yëpp woo naa ko woowu ko yooyu c'est pas important quoi pour man ma personne m'importe peu man li ma bëgg a tey nga comprendre moom mooy mission bi nga xamante am nañ ko ci Médina mais nga yow laa invité de waaw ah, monsieur Seye ta personne nga ko fa mu ne bàyyi nga grand bi de non non bàyyi nga ko xam nga man loolu lay nuru de. yow Sylvie tu sais que ni man man man man ragaluma suma ragaluma fu ma jëm quoi man lu may wax yow mais yooyu yëpp yegguñ fa. Seydou suma grand la suma xarit la. waaw waaye léegi est-ce que mun nga ma répondre d'une manière ferme oui ou non woo nga ko wala woo. lii Sidibé loolu c'est pas important quoi yow mën nañu jàll ci beneen question. loolu pour pas important. loolu c'est pas important de façon mais. naa parce que non man ba may ñëw dama dégg ñaan naan ma non. yaa Seydou Ngagne et cetera mais ma je veux savoir. li ma bëgg nga xam on est là pour savoir léegi yow da ngay leeral lanterne la lanterne des Médinois ah. ne leen waaw Seydou woo naa ko wala woo moo ko ñu xam ne woo ko. non li ma bëgg nga xam daal mooy Seydou du ma dugg ci li mu yëgul. voilà loolu loolu moom na sa xel daal. mais lii am na ñu ne yëgu yëgu ko woon de. non non les gens dafa xëy dégg ko. les gens ils diront toujours ils diront toujours des ils nous sax parti sax bi ngeen ñàkkee ba léegi élection yi si la si la gëj a gis loolu laay dégg ñuy wax.

ah rafet na wala rafetul. loolu la ma ne rafet na wala rafetul. non les les vont en juger. Ah, les Médinois ils vont en juger quelque chose. ok baax na ok euh, lan lan